Assalamu alaikum, assalamu alaikum, fidèles auditeurs et auditrices bu sunu FM muy la radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles Le collo à CAP Sénégal Natangi, ci président Abdoulaye Fall muy un parti bu en construction am droit de regard ci doxalinu réew mi képp ci bëgg information ñu ngi lay numéro bi 77 533 39 00 nous leen di une émission actualité politique de la semaine chaque mardi après-midi nous avons Mariam Sall recevoir un invité de marque une voix autorisée pour en otage askanu nous wëngal képp docteur médecin du travail spécialiste de santé publique médecin du personnel du centre hospitalier universitaire de Fan, 10 points focaux COVID-19 de l'hôpital Fan. Docteur Lo Mangli ngi lay di la ziar di la jox sa wàccuwaay te di am euh, la recevoir ci plateau bi auditeur bàyyi auditeur ak auditrice FM balaa Tambali. Salam alaikum wa rahmatullah jërëjëf soxna Marème maa ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi nga ñëw dalal ci sunu kër FM maa ngi nuyu sa auditeur yëpp ak sa auditrice yi di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi am mbégte ak kontaante di mën a ñëw bokk ak yéen lii nga xam ne jot nañ ko xam ci mbas mi di Covid 19 jërë ngeen jëf. Euh, euh, ñu ngi lay dalal ci jàmm ak salaam ñuy ñaan yàlla commencé ko bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin te ñuy jaajëfal euh, waaye kër docteur yëpp à travers euh, votre personne ndaxte wax fa dëgg yàlla yéenay soldat euh, wér-gi-yaram di soldat de la survie ginnaaw yàlla sunu borom waaye ñu gis ne nag dëkk bi mbas mi ci jiixi jaaxa rek la tëkk askan wi diego yu mag def ngeen ko ci toogu leen benn yoon muy guddi muy bëccëg yéen a ngi xool nan ngeen di moom ko waaye nag stratégie pas mal de stratégies ont été mises sur place mu terewul virus bi di gagner des d'avance mu amaat benn stratégie bu bees bu génn muy les vaccins loolu moo waral tey ñu taamu tem bi ñu tuddee ko les vaccins Covid-19 l'unique option salvatrice contre la méfiance et la réticence des populations ndaxte Nam état dafa am devoiru protéger peuple Waye tamit mu am devoiru communiquer informer ndaxte yaakaar naa bu léré rek ci boppu askan wi Lepp luy inquiétude di réticence di méfiance day andak lepp lépp kon nag tey loolu moo waral suñu waxtaanu tey ndax jiixi jaaxa bi bëri na ci biir askan bi moo tax nag mooy tourné ci yow docteur sama première question mooy ban gis-gis nga am ci course fol bi am ci antidote Covid 19 ci diir bu gàtt bi ñu nekk. waa jaajëf soxna Marème question bi am na solo lool lool macha allah ndax euh, loo gis lu nekk ci àddina rek dafa am liñ naan contexte feebar bi dafa ñëw fekk un contexte mondial boo xam ne lu bari daf ko daf ko marqué am ay puissance am ay surpuissance am des pays émergents ku nekk ci ñoom rek euh, yaa ngi positionné wu pour sa leadership mën a gën a law ci àddina bi ñu ngi gis temps yi Trump di doon xeex ak chinois yi ah Turquie moom aussi bëgg a ñëw di wane boppam France Allemagne Angleterre ñoom ñëpp ku nekk da ngay bëgg a wane ne man la maa fi nekk maa jiitu ci contexte boo xam ne c'est un contexte conflictuel maanaam ay rapport de force moo gouverner àddina bi yëpp ci la mbas bi ñëwee donc ci contexte boobu nag moo tax ku nekk rek bëggoon na man maay ki nga xam ne maay sauver àddina bi ci feebar bi nga xam ne dafa jaaxal ñépp ëlëm ñépp ub bopp ñépp lépp loo xam ne àddina bi xalaatoon na ko rek ne lii romb nañ ko mbas mi ñëw na rappeler ñëpp à l'ordre ne xam-xam technologie matériel logistique lépp lu am rek am na benn affaire bu sew boo xam ne mën naa ñëw faagaagal lépp loolu nag bi nga xamee ne àddina bi yëpp ñëw nañ gis mbas mi kenn amu ci pexe ci la ñu commencé nag di développe ay stratégie ñu bari bi muy door a commencé sax avant muy law nii sax ñu ngi doon di def luñ naan ay euh, projet de vaccin ak projet de traitement loolu moo tax addina bi yëpp puissance yëpp ku nekk bëgg na wane ne man maa sauvé humanité ci catastrophe bi nga xam ne moom lay nekk di dund jamono ji moo tax États-Unis Pfizer Moderna génne seen vaccin ah AstraZeneca Angleterre génne seen vaccin chinois yi génne seen vaccin russe génne seen vaccin gis nga Nous ma commencé ñëpp daanaka des leen ñoom ñëpp ku nekk nee vaccin certes si la science c'est une bonne chose parce que day tax àddina bi mën a gaaw aaru ci bi mais loo gis lu nekk rek dafa am luñ naan euh, lu ci nit ki di muy profit profit en dehors du volet scientifique médical vaccin bi ñi ko xam dañ ko trouver dinañ am notoriété bu mag mag mais aussi dinañ ci am profit bu mag a mag moo comme nim ko waxé on est ñi ngi ci benn course effrénée folle bo xam ñom ñoom ñëpp dañuy daw pour gaaw am vaccin donc euh, lool la bëggoon euh, tontu ci ce première question jërëjëf. jërëjëf euh, docteur nga ne ci contexte mondial bi ñu toll mbas mi dafa tombé mu nekk ci benn contexte mondial bu conflictuel puissance yi di xëccante mbas bi ñëw ku nekk nag di xëcc ne man maay trouver euh, solution bi nga xamante ne mooy génne euh, le monde dans cette situation kon ñu gis ne ko fu mu ne nii nekk nañ ci mais amuñu ci pexe mais en dehors de cela aussi tamit ku nekk yaa ngi ciy jéem a xëcc sa profit kon nag euh, muy affaire bu am euh, solo bi nga wax waaye léegi buñ ci gisee ñoom ñëpp am na régulateur bu fa nekk régulateur boobu di OMS lu ci waaye mën a génne it aussi tamit ordre des médecins yi ñoom ñoo koy valider pour ñu mën ko jàllale ci biir askan wi waaye lu waral ñu ote ci vaccin boobu. et surtout que à un certain moment OMS waxoon na ne du vaccin bobu rek mo meuna a jëlee ci bir adina euh, wërngal képp. waaw jërëjëf soxna Marème wa xam nga euh, liñ naan feebar bo xam ne doomu jangoro mo koy joxe ñu naan ko infection que ce soit infection bactérienne wala virus wala benen xeetu doomu jangoro bu ma sa am ci adina rek gis nañ ne vaccin moo ko mën a bloqué ni muy lawee donc ñi nga xam ne ñoo yor ay industrie pharmaceutique feebar bu am rek ñoom comme ni ma ko waxee woon ci profit dañuy investir ay milliards pour mën a trouver vaccin bi wala garab gi ñoom aussi buñ defaree seen vaccin jaarale ko ci ay procédures yoo xam ne c'est normé ñëpp nee nañ fii lañ war a jaar buñ paree ki nga xam ne mooy régulateur bi ni nga ko tuddee di OMS moom day ñëw ak ay expert ñu càmbar garab boobu wala vaccin boobu su fekkee ne liñ ci seet mooy garab ni ko tubaab bi waxee primam non nocere maanaam garab warta lor léegi dañuy xool est-ce que garab bi liñ koy doyee mate na ko est-ce que garab bi dina indi saafara ci li ko tax a jóg bu fekkee dina indi saafara est-ce que dina lor ki nga xam ne moom lañ koy jox yooyu mooy yi nga xam ne mënu cee ñàkk léegi ñoom buñ defaree ba pare OMS ñëw saytu ba ne vaccin bi baax na bu boobaa ci lañ koy mën a jëfandikoo waaye da nga wax lu am solo mooy da nga ne OMS dane vaccin bi du moo fi jëlee pandémie bi mais il faut ñu xoolee ko ci contexte bu leer maanaam mooy du ko fi jëlee carrément parce que am na feebar yu ko fi jiitu yoo xam ne am nañ ay vaccin te teewul feebar yi ñu ngi fi mais li nga xam ne mooy lu wér te wóor mooy ñakk yi nga xam ne amee nañ ko suñu ñàkkee lu ëpp ci askanu àddina bi feebar bi dina fi jóge ci ni mu mel jamono ji maanaam te ci àddina bi yëpp lii hôpitaux yi fees personnel soignant bi débordé loolu moom nous vacciné vacciner day dak mais du faire feebar bi des fi dina am luñ nane ay cas sporadique comme nico grippe grippe amé chaque année amna vaccin grippe buñuy vacciné wu mais du dina am ay cas de grippe mais l'OMS lim wax ne du fi jëlee feebar bi dañ ko wara a ci côté bobu manam du ñëw rek vaccin bi du dañ né c'est une solution miracle pour xamné dañuy ñëw rek ñu vacciné wu Covid 19 jeex ci adina bi. noonu lañ ko war a comprendre maanaam vaccin bi bu disponible ci pays yëpp ba majorité yi luñ naan environ soixante dix pour cent de la population mondiale ñu vacciner leen bu boobaa day bloqué law bi nga xam ne noonu la feebar bi nekkee di lawee comme jamono ji nga xam ne bu boobaa nit ñi dinañ mën a tukki nit ñi dinañ mën a dund nit ñi dinañ mën a liggéey ay benn benn ñooy am feebar bi dem faju ji comme ni ñu koy defee ci yeneen feebar yi nga xam ne moo am ci jam àddina bi donc OMS wax na dëgg vaccin bi du ko fi jëlee mais dina jëlee situation de pandémie bi nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji ci àddina bi jërëjëf soxna ma dem jërëjëf euh, docteur li nga wax leer na nañ ko xool ci angle bi mu ko waxee vaccin bi du ñëw rek doon solution miracle bi nga xamante ne day ñëw rek jële fi tey tey tey euh, feebar bi mais dina am allure bi muy wàññee situation actuelle pandémie bi waaye tamit nag euh, docteur ñu gis ne ay vaccin génn na waaye bi ñu xoolee d'après information yi ñu am seen fiabilité vraiment dafa euh, minime lool te tamit liñ ci jaaxal ñu jël ko bëgg ko utiliser directement ci doomu aadama yi may ëlbatiku rek di laajte lan moy fiabilité vaccin yoyu ci sen wàllu fonctionnement sécurité ak effet indésirable pour nak askan wi meuna am xel bu dal xamné vaccin yi limuy ñew défar mo upp luñuy xaar ci mom ke lenen waaw jërëjëf soxna Mariam laaj bi am na solo trop parce que ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi xel ñaar ñi ngi am. Euh, ay doute ci vaccin bi lu ci bari ci loolu rek lañ ko teg est-ce que lii du ñëw lor ñu est-ce que lu du ñëw indil ñu ay jafe-jafe ay préjugés yu baree baree bari ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci dégg waaye li nga xam ne mooy li ci am solo te ñu ñëpp war ci bàyyi xel garab bu amul effet secondaire amut vaccin ak garab buy faj ñoo yam ba ci paracetamol bi nga xam ne moom lañ ëpp lu ñuy jëfandikoo bu ñu la waxoon ne mën na rey nit ki ci saa si defal ko lu ñu naan urgence hépatite aiguë ñu bari dootuñ ko jël te ñu ngi jël paracetamol fu ñu toll donc garab moom puisque day ñëw fekk l'état naturel bu yaram bi di dundee mu ñëw modifier ko pour indi beneen saafara il faut mu am effet secondaire mais effet secondaire yi dañ koy jàngatee ne nekkul soo ko jëlee rek effet bi c'est obligatoire da nga war a am effet secondaire bi parce que ni ma la doon wax na sànq ne la ci procédure yi bu ñuy def li nga xam ne mooy liggéey vaccin bi ba koy jox nit ñi dañ koy xayma maanaam dañuy jël nombre boo xam ne day am lu ñaan dafa war a significatif

en présence ci lu bees li nga ko indil maanaam mën na nga jël garab bi sa xel di teej mën nga jël garab bi wàccu wala nga jël garab bi sa bopp di metti wala nga jël garab bi def liñ naan réaction allergique sa yaram xeex garab bi nga dugal sa ci biiram loolu mooy effet secondaire di gën a mag moom lu ñuy wax les choc anaphylactique mais loolu des fois dañ koy gis benn cas ci sur des milliers loolu la wax ne c'est négligeable par rapport ak échantillon boobu nga xam ne moom lañ jël pour tester ko su ma ñëwee ci li nga naan efficacité bi certes ñu bari dañ naan ay euh, vaccin bi efficace mais amul garab bu efficace à cent pour cent amul gut man de gisaguma ko ci sama njàng mu gàtt ndax lu efficace à cent cent xanaa yàlla suñu borom rek moo ko moo ko ma mane puisque nit ñi dañuy sabablu dañuy wax li nga xam ne li nga naan la seuil acceptable ma nga xam ne loolu la ni euh, nit mën a nangu wala ñun moom la scientifique yi mën a nangu ci garab ne efficace na te boo xoolee garab euh, yi nga xam ne moo fi nekk daanaka vaccin chinois bi moo fi gën a faible moo nekk soixante dix neuf soixante neuf pour cent mais ka muy Pfizer ka muy Moderna AstraZeneca ñoom ñëpp ñu ngi tourner autour de quatre vingt quatorze quatre vingt ak quatre pour cent donc garab boo xam ne quatre pour cent d'efficacité lolu manes nako nangu parce que lu ko jiitu am na garab yo xamone ne nañ efficacité bu yées bobu 90% vingt dix ngi leen doon jëfandikoo donc procédure bu bini bi ni man de ci sama xel moy liko wundu moy situation bi nga xam c'était intenable il fallait que ñu trouver ay solutions yo xam c'était des solutions innovantes yoo xam am motax tax li ñuy wax naan vaccin bi xamuñ ni ñu ko liggéeyee xamuñu ko woon certes vaccin bu mel noonu mësee su koo liggéey ci àddina waaye processus bi luñ xam la parce que c'est un processus naturel ci cellule bi nga xam ne mooy élément bi gën a ndaw ci yaram ñu naan ko cellule dafa am noyau noyau bi dafa am luñ naan ADN ADN boobu moo gouverner lépp luy xew ci suñu biir yaram mooy le matériel génétique moom la ñuy traduire def ko ARN messager ARN messager boobu ñëw ci biir cellule bi ñu ñu traduire ko en protéine vaccin yu bees n'est nag loolu lañ def dañoo jël loo xam ne messager bu virus bi moom lañ jël mais dañ koy dugal ci biir nit ki nit ki day defar protéine boo xam protéine bi ci Covid 19 la nekk au lieu que ñuy jël virus bi di ko tibir ci biir nit ki dañoo jël matériel génétique virus bi ñu synthétiser ARN bi ARN message bi ñëw inoculer ko nit ki léegi ARN messager moom rôle mooy ñu traduire ko en protéine protéine day ñëw tafu ci kaw cellule bi léegi bu fekkee yaram bi dafa defar protéine boo xam ne protéine virus bi la day nekk intrus yaram bi daf koy reconnaître comme dañ naan un non soit benn élément extérieur bu boobaa day defar ay anticorps dirigé contre intrus boobu nga xam ne beneen yoon bu virus bi duggee ak ses propres protéines fekk ne amoon na protéine bu identique bu yaram bi gisoon ba defar anticorps léegi anticorps yooyu day attaqué directement virus bi donc loolu lu scientifique yépp xam la mais mësuñu ko utiliser pour defar ci virus te man jàpp naa virus dafa naqaree defaral vaccin donc lii nii solution bu innovant la bu de haute euh, portée boo xam ne àddina bi peut-être ñoom foofu lañ mënoon a euh, scientifique yi foofu lañ mënoon a sukkandiku pour defar rapidement vaccin bi parce que gis nañ ñi nga xam ne dañoo defar liñ naan ay virus atténué mooy yi nga xam ne moom lañ xamoon jël virus bi jël dooleem wàññi ko comme chinois yi ak russe yi mais gis nañ ne ñooñu tamit bi ñu defee noonu seen efficacité c'est plus faible donc ñi nga xam ne dañoo jël ARN message bi defar ci euh, vaccin bi une efficacité moo gën effet secondaire yi ñuy wax c'est très négligeable par rapport à li nga xam ne mooy li nga ne vaccin donc pour man loolu nit ñi seen xel war ci dal ak nga xam ñoo ci wax ñu wax pour ne yaram bi chaque jour day produire ay protéines di ko ci ARN messager

demal la personne assermentée bi am expertise bi pour mu mën la gingi ndax li ciow li bari na ñi ngi naan duma def ñi ngi naan wóorul waaye li nga fi wax ci comme pourcentage ci vaccin ARN yooyu wax fa dëgg yàlla pourcentage yu fiabilité bi bari na 94 pour cent 90 pour cent c'est vraiment acceptable te nga ëlbatiku ne danga amul benn garab bi nga xamante ne am na fiabilité 100 pour cent non, dina am effet secondaire mais c'est minime minime minime minime kon nak ñuy ëlbatiku rek euh, di ñaan yalla yalla dëgëral leen kàttanal leen yok xam-xam bi ba mu may leen kàttan ak pexé bu ñu a mi mais may ëlbatiku rek euh, docteur di la laaj ne nga AR ARN messager bobu boo inoculé euh, doomu aadama bi yan risque moo ci mën a euh, jóge bu dee système immunitaire doomu aadama boobu no wuyuwul ci attente yiñ koy xaaree ak lan ngeen prévoir ci situation yu ni mel su amee jërëjëf encore soxna Marème euh, laaj bi am na solo lool comme ni nga ko waxee rek ne bu fekkee yaramu nit ki répondre waaw loolu lu mën a nekk la te dañ koy xaar ci vaccin yëpp nekkul loo xam ne c'est spécifique ci vaccin contre la Covid-19 parce que nit ku nekk dafa am nu système immunitaire am di réagir am na ñoo xam ne boo leen joxee vaccin bi seen yaram day réagir fortement defar ay anticorps yu bari am ñoo xam ne seen yaram day réagir faiblement am ñoo xam ne seen yaram day réagir modérément loolu vaccin yëpp am na ci parce que nit ku nekk accès génétique nit ku nekk ak ni la yàlla moolee ma jox la ci firnde bu leer maanaam ci vaccin tétanos gis nga ni dafa am ay rappel dañ naan la da vacciner M0 M1 M2 M3 rappel boo amee un an rappel boo amee 5 ans lu tax ñuy def rappel yooyu parce que xam nañ ne ci système immunitaire bu ñu la joxee vaccin contre tétanos day togg une quantité euh, day defar ay anticorps mais à un certain niveau bo xamné ne mënu ko dépasser motax dañuy defaat benen dose de rappel pour yaram bi toggaat yenen anticorps loolu dañ koy def pour yokk efficacité vaccin bi nga xamné mom lañuy jox nit ki donc ci Covid 19 comme ci yenen fièvre man nga ñëw nga vacciner nit ki mom du réagir comme niñ ko doon xaré dans ce cas mën nañ ko une dose de rappel pour booster le système immunitaire mais loolu ci campagne de vaccination de masse loolu ay benn benn lay doon moo tax ci campagne yii nii taux taux de couverture vaccinale ...si suñu vacciné benn pourcentage même su amee ñoo xam favorablement comme niñ ko doon xaaree ñeneen ñi nga xam ils ont répondu fortement ñooñu ñooy tax ba feebar bi dootul law donc pour dissiper genre crainte yooyu naan est-ce que bu système immunitaire bi kiyut lan lay war a wàññi nit ki du wàññi nit ki dara mais ci xeex mbas mi dina tax moom par exemple du bokk ci ñi nga xam ne ñooy stoppé feebar bi même bu fekkee ne feebar bi bu duggee si moom bu waroon a graawee cent ay 10 wala 15 lay graw parce que yaramam déjà xàmmee na doomu jàngoro bi donc même bu fekkee attente bi nekkul li ñu doon def c'est bénéfique pour la personne parce que est sensibiliser nañ ko ci doomu jàngoro bi mais aussi dina tax du def forme grave wala muy def ay forme sévère et sur le plan épidémiologique nous c'est des pourcentages très faibles par rapport ak milliers ou wala millions de personnes yi nga xam ne leen war vacciner ok jërëjëf. jërëjëf docteur ci leeral détail bi nga indi. parce que ñu bëri yaakaar nañ ne xëy na tey soo ko inoculé nit ki doomu jàngoro ba mën na faa des euh, di am lu muy yàq mais nag wax fu dëgg yàlla dalal nga xel yi ne waaye ci biir waay docteur yi di nga gis am na ñoo xamante ne dañuy inquiété am na ñoo xamante ne dañuy apaiser euh, askan wi te askan wi nag wax fu dëgg yàlla ku ko gi ngi la bëgg léegi mooy ëlbati ko war rek si sama question bi may bi may laaj parce que boo xoolee docteur am na dëkk yoo xamante ne euh, vaccination bi doonul obligation day doon engagement personnel nga ne man bëgg naa ko def nga dem ñu defalal la ko al contre par contre nii ma gisee nii li ñu jot a avancé dafay mel ni vaccination pour tous la peut-être que xëy na dina am étape boo xamante ne dinañ fa egg est-ce que obligation la pour ñëpp euh, vacciner wu pour ñu àndandoo xeex mbas mi

ay mbokkam taxaw wala moom mu ne bëggatuma son yi ñu ne ko kon kat bindal décharge nga ne yow yaa bëgg a génnal sa bopp xam nga ba boobaa nit ki nga xam ne diggante dund ak dee la nekk bañ soin bañ faju ginnaaw kooku moo sañ a bañ astamaa ki nga xam ne dara jotu ko kon buñ sukkandikoo ci loolu dinañ xam ne nit jamono ji ñu toll dañ koo jox ak ay ay àq yu yu yu kawe

seen mbokk yi famille yu bari di di di di am ay jafe-jafe parce que feebar bi dafa garaaw dafa doy waar te ñu bari ci askan wi gisuñu fi feebar bi toll moo tax ñun dañoo gën di war di wax fu ñu toll dañoo war di wax pour wax ne feebar bi am na amul sax moom waruñu ci sax nekk di débattre parce que romb na foofu maanaam est-ce que niñ naan noonu la garaawee noonu la garaawee wala déet loolu lañ war a xamal askan wi ne feebar bi garaaw na garaaw goo xam ne am na ñenn ci nit ñi su leen jàppee du leen baal donc puisque ku nekk xamoo lan moo nekk sa yaram surtout ñun Afrique fii nga xam ne ku nekk am nga looy sooxaaleel donc ku nekk war ngaa daw feebar boo xam ne bu la fekkoon nga am lu la manqué daf lay sonal moo tax ñun ñi nga xam ne dañuy woyaale ay feebar ñun ñi nga xam ne mën nañoo toog dix ans duñ dem hôpital mosuñoo def bilan ci suñu àddina mosuñoo dem def visite médicale pour xool lan moo nekk suñu yaram bu feebar bi ñëwee fekk amoon nañu benn jàngoro wala benn feebar bu nekkoon ci ñun te xamuñu ko mën nañoo lor donc obligation citoyenne la maanaam citoyen ñoo war a jug daan ne lii kat dafa nekk suñu problème dafa nekk suñuy jafe-jafe mi ngi yóbbu suñuy mag fii ko dégg rek jamono ji daanaka bu fi jógee rek Covid 19 lu ci ëpp moo ko waral donc ñun jeunes yi surtout nañ gën a engagé wu ba bàyyi ñuy wax ba bu vaccin bi dikkee ñun ñi nga xam ne première défense yi ñu mën a taxaw vacciné wu am ay anticorps yu bari mën bloqué infection bi parce que bu mag ñi nangoo vacciné wu te xale yi vacciné wuñu du am efficacité parce que maa ngi ko doon wax sànq ku nekk ni ngay réagir face à la vaccination bokkut te ñëpp xam nañ ne mag ñi système immunitaire amul doole réagir yenn réaction yu ñoo campagne de vaccination bi ci quartier ci association de famille bàjjenu gox ñëpp ñoo ci engagement citoyen la ñoom ñoo waroon a dajaloo sax nit pour wax leen ñun kon bi am solo obligation la ci waaye engagement citoyen pour bépp askan boo xam ne yaa ngi dund ci àddina bi waxuma rek Sénégal donc loolu laa bëggoon a tontu ci sa question bu am solo bi jërëjëf. jërëjëf euh, docteur li may wax aussi tamit euh, apaiser nga waat parce que amoon na ñu takkoon seen daal di waaj a daw naan piqûre bi su ñëwee ñi naan duñ koy forcer nit ñi ñi naan ma nangam ak nangam waaye li nga wax leer na. force ko ñu kenn waaye li gën nous ñu am engagement citoyen ñu aar keneen ki mooy man ma aar sama bopp ba nga xamante ne ma doon porte bi nga xamante source de contamination kon la OMS doon wax naan vaccin bi kese problème bi waaye li koy gën a solution gën a am pour un mi mooy ku nekk nga def ko sa te et ak dajaloo moy dole ci ko war rek euh, docteur muy nek la toute dernière question si sa bir wax ne nga ñak ñi ñi ñakku ñi baña a régler wul problème bi stratégie état ak yeen way docteur pour enrôler graduellement les populations. te xam naa ne dina laaj ci ay moyen te ñu ñi rax est-ce que dina mote est-ce que sax ñun dinañ ci jote kon nag foofu loolu mooy sama dernière euh, question euh, docteur waaw jërëjëf soxna Marème fi nga daaneele am na solo maanaam est-ce que ñàkk wi dina mate est-ce que dinañ ci mën a jot donc loolu xam naa ne ci gën a wan a mën a tontu mooy xanaa njiitu réew mi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllum faj mi ci réew mi waaye ñoom comme ni ma ko waxee sànq seen obligation la pour ñu ñàkk sénégalais yépp sans exception su fekkee ne mën na nekk waaye nag comme ni ma ko waxee woon ci début ba dañoo nekk ci monde conflictuel te ku nekk liñ naan sama boppam walla la gënal du bañ naa la loolu la état yëpp nekk di def jamono ji te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi nga xam ne dañoo néew kàttan amuñu doole c'est très difficile ñu mën a jot ci vaccin yi très tôt et man ci jot aussi ci quantité bu bu doy bu suffisante ndax gis nga ni Amérique Europe ba si Asie ñu ngi commencé di ñàkku te pays africains yi daanaka benn benn ñoo ci ñàkku moo tax nga gis suñu réew yi ñoom tamit buñ amuti moyen ñu ngi def ay stratégie ñu ngi booloo di dajaloo def ay association comme COVAX bi comme seen partenaires yi ay Gavi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy daje ci ay kuréel dajale ay pays yu bari plus de cent pays ñu dajaloo pour man di commandé ndoo nga xam ne buñ commandé vaccin yi ñoom cent pays yooyu ak lu topp dina doon quantité bu bari ba nga xam ne laboratoire yi dinañ leen mën a jaay parce que ñiy jaay tamit dañuy bëgg bu ñuy jaay jaay ay millions de dose yu bari ñu ñëw jaay benn Sénégal benn cinq million de dose du leen arranger trop moo tax duñ ci sawar dañuy bëgg koo xam ne day ñëw jënd ay dix millions de doses vingt millions de dose wala cent millions de dose loolu loolu lañuy bëgg moo tax suñu réew yi mu ngi defar seeni stratégie ñoom aussi di positionné wu nga xam ne si l'occasion se présente rek aussi ñu mën a le maximum de doses possible Mais aussi ñu ngi ciy jàppale ak yenn partenaires yi xam ne xeex bi xeexu ñëpp la bu européens yeeg américains yi vacciné woo te africains yi vacciné wuñu feebar bi du fi jóge moo tax man si sama xel bu gàtt tôt ou tard nous aussi dinañu yombalal pour ñun ñu mën a ñàkku ci couverture boo xam ne dina tax mbas mi mën fee jóge parce que problème bi problème mu ñëpp la addina bi léegi village planétaire la kenn rek mënta tëju ci dëkkam moom kese parce que ñun ñëpp on est interdépendant même bu fekkee ne ñoom ñoo ëpp doole am na genn côté goo xam ne ñun ñoom dañ ñoo soxla donc man jàpp naa ni même bu dee yeex sax dose yi dina yegg si te dina doy te gis nañ au premier chef ñi nga xam ne ñoo nekk ci

te li koy firndeel aussi tamit mooy wane ne nombre de morts yi dese yi ñuy am par jour te loolu amul woon fi léegi lan ngay mën a sensibiliser waat euh, askan wi ñu mën a gën a fagaruwaat gunge leen ci xeex bi pour ñu mën a am résultat ci nu mu gën a gaawee ci si si si si ci loxo laaw sunu borom it tamit la ñuy ëlbati ko yit tegaat ko yëpp waaye doomu aadama lu mu am mooy sabab lu fagaru kon nag euh, lan ngay wax après soo paree rek mm, nga tàggatoo ak euh, auditeur sunu kër FM yi. waaw jërëjëf soxna Marème mot de la fin bi xanaa wax nit ñi déjà ñun li ñuy li ñuy nekkee maanaam ne leen mais ni nga xam ne moom la feebar bi di laal par jour bari na ñi nga xam ne moom la ñuy def ci communiqué bi nga xam ne moom la ministère de la santé di liir. loolu échantillon la rek ci ñi nga xam ne ñoom la système bi di di di gis donc lu ko ëpp mi ngi ci askan bi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk hôpital di leen recevoir dañuy gis ñoo xam ne dañuy ñëw à des stades avancés de la maladie bu ñu ñëwee dañuy nekk tableau de désaturation maanaam dañuy fatt manqué oxygène parce que doomu jàngoro bi jàpp na seen poumon yi ba ñoo noyyi ñooñu duñ am sax temps di leen tester buñ defee scanner bi rek dañuy gis ne ñi Covid bi moo leen jàpp donc di leen wax ne ampleur bi romb na foofu fi nga xam ne foofu la ñuy joxe bis bu jot parce que ku nekk xam na ni nekkul ñëpp ñu feebar ñooy dem hôpital nekkul ñëpp ñu dem hôpital la ñuy testé loolu rek doy na ci pour xam ne feebar bi tollu ci ay centaine yu ñuy joxe par jour moo tax nañ gën a fagaru nañ gën a jàppale suñu bopp jàppale personnel de santé bi xam ne sonn nañ te lii mënta parce que bu continuer du du baax moo tax may ñaan ñëpp nañ gën a fagaru ci li ñuy wax mesure barrière en attendant vaccin di mën a ñëw mesure barrière yi nag duñ ci tàyyi di ko rappale mooy takk masque foo man di nekk ñu bari dañu jàpp ne bu ñu nekkee seen collègue de travail seen collègue de bureau dañoo war a tekk seen masque déedéet ka nga ngay liggéeyee da nga war a takk masque booy wàcc di ñibbi da nga war a takk masque boo nekkee ci mbedd bi danga nga war a takk masque donc takk masque bi heure su la nit raxee rek da nga ko war a takk beneen bi ci topp mooy heure soo génnee boo duggee sa kër bala ngaa laal dara nga raxasu bu fekkee ne da ngay joxalanteeg ay nit ñu bari nga teg sa gel ci sa table de wala ci sa bërëbu liggéeyukaay chaque une heure de nga frictionné wu chaque trois heures quatre heures de temps nga dem raxasu ak saabu ba sa loxo set te bu ñuy nekk di jaxasoo bu ñuy jege nañuy dandante di soroyantewoo lu toll ne mètre suñu diggante dina tax ñu mën a aaru ci feebar bi donc mesure yooyu na ci ñëpp gën a bàyyi xel nañuy takk masque yi nañuy dàndante nañuy raxas loxo yi di ñaan yàlla suñu boroom moom mi nga xam ne nag lépp woyee scientifique o vaccin o garab o ñun ñëpp ci ñi ci ëpp gëm nañ ne dara du am ci kaw suuf te yàlla suñu boroom namu ko kon nag nañuy delluwaat tamit di ñaan yàlla suñu boroom mu teggil ñu mbas mi te ñu nit li ñu war maanaam sabablu bi comme ni ko waxee soxna Marème nañuy sabablu bu baax a baax a baax maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm waa suñu si rajo bi ak soxna Marème waxtaan bi vraiment am na solo waa Cap Kaaraange waa CAP Sénégal naataange maa ngi leen di sant ñoom aussi bu baax a baax di leen gërëm ndax ñun tamit lii dina tax ñu mën a waxtaan ak askan bi ndax xeex bi ñëpp ñoo ci bokk ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. Ah, jërëjëf docteur Lo kon nag ñun ñoo la amal ngërëm ak sant ndaxte jaar bi nga fi jaar émission bi nga def am na solo kon communication. moom mooy régler lu bari lënt lënt bu am jafe-jafe bu am buñ ko waxtaanee rek dinañu askan kon xaar multiplier Docteur multiplier le maximum possible la communication pour étendre les messages kon ku dégg dalal ñu euh, l'émission tire à sa fin les euh, temps bi ñu jeex na xanaa ñuy ëlbatiku rek di sant auditeur ak auditrice sunu kër FM ñoom ñi déglu bu ñu mën a partagente ak ñoom information yi de kon nag ñu ngi jox euh, dig daje beneen yoon te di ñaaxaat rek askan bi fii fu mu ñu toll nii dund wala dee moo fi nekk xam nañ ne gaa dundu ci loxo yàlla la nekk dee ci loxo yàlla la nekk waaye mbas mi menn mi rek moo fi nekk kon nañu àndandoo xeex mbas mi mu jeex ci surtout ñun sénégalais ci wàll bu docteur yi bu ñuy di pour askan wi askan yi tamit nañu jël fédéré seen muy opposition du pouvoir yépp jël docteur yi ñu xeex bi mu jeex euh, Sénégal ak